Nabou. mais je suis pas comme ça Nabou boobaa day je suis pas comme ça c'est faux. damay bañ mu ñaaw mais je suis pas comme ça li nga jox yëpp ko live ne ah, califane. je suis pas comme ça redonne-moi tout mon argent. ah gars yi ñu wa dégg ngeen kon Nabou seede ngeen. attends attends est-ce que je suis comme ça. je suis pas comme ça non non tu n'es pas comme ça tu n'es pas comme ça. je suis pas comme ça dégg ngeen ah kii na dalay live. liveal. <laughs> <laughs> eh bu ma livealee ma liveal ko. defal tout droit eh. bu ma laay balee ma laay bal ko waaye ñun gis ngeen yéen a ngi ñu bëgg jaxase sax maa ngi nangu waaye gen leen fi ngeen xëj waay gis ngeen nabo ngi énervé sax kenn ñaari nit laa fi mos a laay bal waaw ñaari nit waaw te dama wax seen tur ma tooñ man ko ma tooñ ma xëyal la bon laay bal la lii war kilo <laughs> <laughs> eh damay bañ un rek mu laay bal rek ñëw leen ñëw leen ñëw leen Kaliphone baadoole la la jaam la defeyaa la tàngami millions yi ma ko joxoon Kaliphone delloo ma ko ay bu boobaa mais luñ la may ba pare nag day rees nag amul maye nangu amul maye nangu nabu nee na may nangu baaxul sa yaay day am doomu jaan dégg ngeen <laughs> nabu nee na may nangu baaxul sa yaay day am doomu jaan moom na xale la ko dégg ngeen yi muy wax ay doomu jaan waaw gis ngeen ah adduna méttiwul adduna lépp teranga la elle n'est pas comme ça non non yi ñooy ruube rek mais man vraiment sister bu gentil la ku ko xamul moo ko xamul ku ko jegewul moo ko xamul xam nga nit ñi dañuy toog à travers réseaux sociaux yi di juger doomu aadama yi man nit ñee ngi may